baax maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay bu baax a baax. da ngay sigi wax ak ñun. man kay sigi na. non pour caméra man ah pour ah oui amul problème ñu ziare. fii mooy fan. fii mooy Kaolack. Kaolack Ndangaan. Kaolack ancien garage. commerçant ngeen fi. ñun ay jaaykat lañ fi waaw. Kaolack mi ngi neex. Kaolack mi ngi neex bu baax baax baax. Ah, yow fi nga juddoo fi nga yaroo. non non juddoo mu fi yaroo man jolof jolof laa mais nag yàgg naa fi de wax dëgg yàlla miin baax rek ci baax yàgg nga Kaolack. waaw. mais moo la ñu wanoon yàgg nga Kaolack. ah boo gisee sama bëñ yi xam ne man yàgg naa Kaolack. reetaanal ma xool. laa <laughs> ilaha illallah. waaw mais lan moo waral Kaolack seen bëñ yi di mel ni. waaw loolu dañ koy wax rek mais am na ñoo xam dañ ko fi indaale man Jolof laa juddoo sax mais gisoo sama bëñ yi ni mu xonq. Ah. waaw Jolof laa juddoo de. mais xanaa Jolof ak ak Kaolack ñoo bokk racine. non non lolou yalla mo koy def rek don lay don rek nit ki li yalla bind ci mom kenn mënu ci dara léeg nit day ñëw fi ma jaay affaire buy dindi bañ dama na la jox ma magicien waye xamna na du dañ ah. waaw bañ mom num xass bu mel mom lolou mom mbiri suñu borom la rek mais maire Kaolack bi num tuddu tudd eh, kok moy Serigne Mbuub jambar fak teud ah, lu ngeen wax ci mom contant ci mom rek waaw contant ci mom te di koy ñaan yalla jappale ko tey bu suba nak hmm. waaw gisunu li ñuy ak mom xana mu won ñuko la mu def ñuko waye tank waruñu ñu lutax ñu bako wala mu def ñuko ñun inshallah ñi ci kanaw ci ko and ak mom ba geejgi fer. ma lay jere yeuf merci. yow no tuddu man la la fal la la fo dëkk. man Kaolack la dëkk. fi nga juddo fi nga yaroo. fi laa juddoo fi la yaroo. mais loolu est-ce leer nañu lan mo ñu leer ni fi nga juddo fi nga yaroo. amna ah, am naa carte d'identité rek. carte d'identité. amna naa carte d'identité. am nga carte d'identité. waaw. carte d'identité ban carte d'identité nga ah bu bu bu Macky Sall bi. est-ce que bu gën a fort bu Macky Sall bi Kaolack kay boo fi dëkkee am. waaw am naa bañ yu chocolat yi de. mooy yan. yi ma sax <laughs> yi may waral seen bañ di melni? nii. ah lan waral bañ Kaolack di melni? nii. ndox yi ndox mi lañ wax ne boo ko naanee bañ yi day chocolat. mais luy chocolat bañ ba baax na yaram tamit. baaxut ci yaram moom. Ah. déedéet baaxut ci de. léegi lan ngeen di wax sëriñ mi nga xam maire dëkk bi. mu dimbale ñu changé ñu ndox mi rek ba suñu bañu doom yi buñ ko mel ak suñu bañu rakk yi buñ ko mel waaw ñu de loolu lañ koy ñaan moom bu ñu ko mënee changé ba ñoom duñ am mu baax parce que ñun ñii di wax ak yow nii dañuy soccu dañuy brosu dañuy ut ay leneen pour def ko pour mu dëñ mais mënut mënuñu koo dindi. mais cosaan la ci dëkk bi tamit. waaw cosaan la mais bëgg nañ mu dëñ fi nag moom waaw. léegi léegi Kaolack fii si marché bi ñu leen fekk mbaa leen fi jafe-jafe rek. déedéet amuñ fi benn jafe-jafe. amuñ ci benn jafe-jafe moom xanaa poussière bee fi sonal moom ak taataa ndox yi waaw waaye ci benn jafe ñëw fi di leen sonal ci marché bi. non déedéet kenn sonalu ñu fi wax dëgg yàlla waaw kenn fi ñu fi am jàmm moom. mais sëñ Mountakha xam lan la digle. mu ne. sëñ nga. man Tidiane laa. waaw sëñ Mountakha dan nañ ñëpp nañuy dugg ci mbégteem nañuy reetaan. dañuy reetaan waaw dañuy reetaan kay. góor ñu ngi lay nuyu. ah ñoo lay fay. fan la. de mooy ancien garage. de raison bi. raison raison de Kaolack. ah Kaolack la. waaw. ah, ah yoo xam dëkkoo fi. man ah dëkk ma fi de Touba laa dëkk. waaw da waaw. mais Kaolack ku fi dëkk nan ko a xàmmee. fi dëkk ah loolu de moom xam naa da doy ma yaakaar ni Kaolack bu ñu dina xam fi nga dëkkool dëkkool. ah ah gars ci bëñ lañ koy xoolee. yow reetaanal ma xool. <laughs> man dëkk moom. waaw lii rek lañ bëgg mbégte rek lañ bëgg sëñ Mountakha moo ko digle. ah wax nga dëgg de kon ñoo ngi ci ñoo ngi ci mbégte ñoo ngi ci ñoo ngi ci gën yi nekk. ah jàng alxuraan xaside yi. kon nga noo tudd. Abdoulaye Cissé laa tudd. Abdoulaye Cissé. waaw foo dëkk. fii Kaolack. fi nga juddoo fi nga yaroo. fi laa juddoo moom waa yaroo moom. foo yaroo. man si àll bi laa yaroo. àll bi fu mel ni fan. côté Kaymoor. dëgg bu ñuy wax Sonkorong. mais Kaolack neex na. Ah, neex na neex bu yem rek waaw. mais Kaolack seen carte d'identité la. jégal ma rek. amul problème. man fii Kaulah beto Betoar wa man Lamine gëwuma ne Kaolack nga dekk de ah kaulah di kaulah Kaolack di la de 15 bi ndax fo am keur fa nah, nga dekk ah man ne gëwuma nga dekk ah kana la ma wa me man ka dama wër wa Kaolack yëpp wa yow ma gis nga yor yu rafet sha allah ah wa wa lol mo amna ndax te manam bari na ño xamne ni dañ fi ñëwoon pour liggéey wa yalla def ñi am fi keur man sama dom fuñ tollu bu taxawee iya, bo ñëmi da nga yaaka ah. sama dom yëpp seen bañu comme li nga wax fam bi non la mel taman melu moko lan moo waral ah, loolu de laaj naa la yaakaar naa est-ce que nekkul ndox mi yaakaar naa est-ce que gars dañ ne ndox mi la de wala waaw ah, dégg naa gars yi wax loolu de. Serigne Boub mi ngi liggéey. Serigne Boub waaw Serigne Boub moom mu ngi góor góorgóorlu moom ndax nag maanaam li ñuy wax xalangu dajut suuf waaye wax dëgg yàlla man li ma gisagum man doyagum na ma man su ma waxee sama diggante yàlla bi may dem bay woote sa moom laa wooteel. Serigne Boub daal jàmbaar la. Serigne Boub daal la yàlla na ko yàlla dimbale rek. Ah. waaw yàlla na ko man dafa xam 5 ans dafa gàtt bu fekkon dañ ko yokal te mom jambar la mu ngi liggey mu ngi jël alalam diko def ci nit ñi man dal sama dagam sama sogo mandam bi ñu ko ah, déet bu fekke amna na fi ëpp ñariñ nag ah kan kooku yombu yombu de ah kooku mako de sëriñ bu rek man da sëriñ bu waaw sëriñ bu dal moy sama way man waaw kaw ci kanam maa fay bu baax naka yi tay san suñu borom baax fi mooy fan ah fay ki arrêt sa saalum la nga wax arrêt sa saalum région bi nu mu tudd. ah Kaolack. waaw. mais bi seen liggéey ci marché bi yan jafe-jafe ngeen am. bi daal ñu daaw ñu daaw mu lu suñu jafe-jafe daal ñu daal ñu ñu bañ fi ñu liggéey daal ay ndaw neen dëgg yàlla liggéey kese mooy ñor wax moom waaw waaw la ñuy xëy guddi la ñu ba du di ñaan si di di di daal mu jéem ñaa jàppale ñu bañ fii rek waaw dëgg dëgg yàlla isaan raam yi xam nga lii kii kii kii na rafet na too raam yi kii raam yi waaw mais Serigne Mboup daa bëgg daa bëgg dëkk bi da ko amul ba ñu ko wax tam mu jëlee la fi de. mu ref na trop dëgg yàlla yàlla du ko yàlla bu baax mu mëkki ñu bàññ fi rek wax dëgg yàlla rek waaw loolu laa muy wax dëgg yàlla rek ok xew a rek naka yi tey naka yi tey sant yàlla bu baax commerçant nga fii ci marché bi waaw commerçant la waaw looy jaay man ay dàll laay jaay ay dàll fer bi yow yow région bi mooy ban région Kaolack bangga. Kaolack bangga waaw. fi nga dëkk. bi laa dëkk waaw. mais grand pourquoi nga sol masque bi. non poussière bi c'est que télé bi moo tax xam nga dafa bëri poussière ak camion yi fi jaar nii duñ daw daw na te man ñun moom dañoo yoro kii moo tax benn feer boo xam dañuy dañuy. mais da ngeen reportage dañuy seen ah non di ko sol loolu de. ah waaw mais. kon dindul masque bi. masque bi poussière moo tax poussière yi. <laughs> non gannaaw lii moo tax ngay nëbbu sa bëñ. <laughs> non bu ñëwee non nii quarante la. Ah. quarante la. <laughs> mooy mooy quarante Saloum boo rek boo boo génnee rek dañuy xam ne yow kaw la dëkk. cosaan la ci dëkk bi. Ah, cosaan la ci dëkk cosaan la ci dëkk bi waaw. aco seen liggéey ci marché bi seen maire Serigne Boub ban taxawaay la am. Ah, Serigne ah saa yi mi mi mi ngi liggéey gum saa yi moom waaw dañ koy dañ koy bàyyi amendement tuuti rek comme instant yi mi ngi doog a door fi amagu fi lu mat ay weer weer yu bëri Eh, fii ñi nekk nii sax parce que moo ñu fi teg waaw ah, tey bu ko neexoon tey mën a xeexee yi yëkkati ah, gaay yi waaw comme garab yi tuxu na ñun eh, mu tuxee presque man na li mu at ba léegi ñu ngi fii te moo ñuy ne ñu ne ne neen toog fii ngeen jaay ah, tey xanaa bu ñu demee bu ñu yëkkati li ñu danañ jox xam ne tey dañ fi mën a suturu mais Kaolack gépp moom sëriñ boobu la ñu wax Kaolack waaw ah instant yi ne moom la am na am nañ yaakaar lañ wax gaay day am yaakaar rek <laughs> yaakaar lañ am waaw Kaolack moom léegi moom instant yi moom ñuy commencé yeewul léegi ku liggéeyul rek kenn ku ñëwaat rek ñu foole la teg rek loolu kese la de. Mbaye Ciss nag Baye Ndiogou Mbaye Ciss xaw ma nu ñu koy waxee noonu Baye Ciss waaw. ah Baye Ciss naa mi ngi def ay effort moom waaw ah, mi ngi instant mi ngi def effort moom waaw ah, instant yi moom mi ngi liggéey mi ngi liggéey Kaolack moom Kaolack moom. mais Serigne Boubou ko man. kala Serigne Boubou ah non <laughs> non Serigne Serigne Boubou da koy da koy da koy njëkk a jug rek <laughs> ah. waaw jaajëf jaajëf jaajëf merci yaay booy maa ngi lay nuyu. ah maa ngi jégal ma ko mel ah, non ci marché bi nu mel rek. jégal ma ko rek ba ah ma jégal la ndax lan bëggoo wax say soxla ka nga nekk ci marché bi di xëy comme ñëpp buñ leen fi lay wax. ah buñ fi jëlee rek xanaa ñu xool feneen rek xool xaar fa ah ma rek ba beneen ah, non non dama non xam nga waaw soj ay bakkan waxul xam nga tey marché bi ni ngeen fi ah dinañ fi yëkkati de ah, waaye lay def lool suñu fa

waaw bu fene bu gisse sa cadeau yu rafet yi bëgg xar sa xamé sa xaram du ko gis. ko gis mo ñun daal bu ñu won sa suñu mbedd yi toyé eh, rek ñu jël ñu am fu ñu jaar ba mëna liggéey wax dëgg yaa ndox mi soppi bañi nak ndox mi soppi bañi nak ndox mi soppi bañi mu sansé ko rek jàppale ma ci waaw sigil nak yaay boy nak dimbale ma rek waaw sa sa war na yaala sa demat rek gën. nak nag mi métti na sëriñ bu kay kay musa ci marché bi di teel xey du di wacc fa ñu lay ni jël lool mo jam alaykum soxna si. alaykum salaam sëñ maa lay ziar. maa def. waaw jom am jom rek jar na xëy sa place bi nii. place yow fi def. man damay jaay fii fii lay jaay. dégg nga wolof. déedéet. loo dégg. Bambara. foo dëkk. Merina Merina Baye. kañ nga ñëw Kaolack. yàgg na. def nga fi na mat 10 ans. ëpp na kon yow ndox mi daal na sa bëñ yi. <laughs> waaw loolu moom am def nii. waaw loolu moom am na. mais Kaolack neex na quand même. waaw Kaolack moom nee na ñuy sant yàlla. ñu julli ci yonent bi. merci beaucoup. maire maa ngi lay nuyu. <laughs> ngi lay fay. bi nan la. man man de hmm. mais fan la raison bi fini nii la. yo fi nga dëkk. man déedéet. ko dëkk. man Ziguinchor laa dëkk waaye nag instant yi moom fii laa dëkk nak fi la nek wa nga borom kër. amna borom kër kay. mi ngi lay seetaan. hein mi ngi lay seetaan. mu ngi may seetaan manam léegi lan nga koy wax mi ngi lay seetaan ci écran bi léegi yan kàddu nga koy wax. ah. ak nii nga amé jom nek ci marché bi yan kàddu nga koy wax. ah xanaa di ko gërëm di sant rek ndax ya lepp mom la rek suma ma bàyyiwutoon duma nek ci marché bi. waaw maa ngi koy gërëm diko sant rek di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram rek. xam nga moom amul mag amul ndaw mbëggante la rek. dëgg la kay waaw. def ko kuku ci écran bi nee ko bisu. waaw naa la. <laughs> ree naa ko ree bare bare bare. <laughs> kay. Eh, Père maa ngi nuyu yow. waaw jox naa la. non moom day ree rek. jox naa la sama soxna si caa lay toog di xaaxataay. noom ma rek bëgg ma rek bëgg ma rek bëggee rek. Eh, grand foo ko dugal ba bëgg la ni. ah gis nga ko de yàlla mooy rek jox ko eh, eh, waaye ma yow nobaate nga torop. day soob rek <laughs> moom moo gën a nobaate. Ah, yow man waxuma woon ak yow te yaa ngi doon ree loo doon ree. ah man damaa bëri jàmm rek damaa bëri jàmm rek. waaw waaw na ngeen def nag. mais naka Kaolack. Kaolack a ngi neex rek. Ah. waaw waaw. ba amu leen benn problème ci marché bi. ah xanaa kay ndox mi rek. ndox mi rek ndox mu bari mi rek. waaw ah, waaw ak dëkk bu dëgër bi. waaw léegi sëriñ bu moom jéemu ci dara. ah mu ngi def lu mu mën de. waaw waaw. yow Kaolack nga dëkk. man Kaolack laa dëkk kay. lan moo ñu xamal ni Kaolack nga dëkk. ah man de Kaolack laa dëkk wax dëgg fa yàlla. juddoo woo fi. juddoo ma fi de waaye fi laa dëkk nag instant yi yàgg nga fi. yàgg naa fi. léegi reetaanal ñu xool. <laughs> reetaan naa. bi. tali bi ay nii mais freinal. <laughs> wax a góor yàlla. waaw bàyyi ma yan jafe-jafe ngeen am ci Kaolack. waaw Kaolack métti rek. tali benn baaxu ci benn tali baaxu ci. mais dëkkoo fi. man fii laa dëkk fii laa juddoo fii lan moo leer ci loolu. ah boo ma xoolee xam ne fii laa dëkk fii laa juddoo fii xool nit rek ni ko Kaolack nga dëkk. waaw. xam nga ma xoolee rek bi nga xam ne woon fii laa dëgg. loolu may koy waral. non ndaxte quarante yi xanaa gisoo ko. reetaana quarante yi <laughs> gisoo ko xanaa. rajo Baye Fall demal. ni nga naan góor. naka kaw la. ça va na fi. mbaa yéen ngi am jàmm. amu leen fi benn jafe-jafe. Ah, fii ah jafe-jafe nag bëriwul. ndox daal moo fi ñàkkoon waaye wax de ndox daal mu defoon bu daan taw daal. caméra papa. waaw ndox daal bu daan taw. fi duñu am fi yeb dang koy tànq di kii waaye léegi da wax deug yalla ndox mi mi ngi dem ci jàmm serigne buub mom ba mi ngi liggey alhamdullah ah gis ah, nañ ci mi ngi liggey waye nak na yok dal, alhamdullah parce que japp nañ ci bu baax nit parce que bëgg nañ ci eh, dekk bi dal wax deug yalla mi ngi ci def dal mi ngi def dal yow ko wax fi nga juddo fi nga yoro man juddo mu fi de man Louga laa dëkk Louga nga dëkk waaw nga ñëw wax man nag yàgg fi ndox mi num def ak yow ndox mi alhamdullah ndox mi dal nim doon mel bim doon ta fi dal mom wax deug yalla taatu fi waaw. non man sax waxuma ndox mi ta, ndox mi yak bëñ yi nu def ak yow. ndox mi yak bëñ yi bëñ yi. ndox mi yak man ndox mu neex lay nan nak man du ko nan ndox mu naqari wax deug yalla leg retanal mo xol ko. ah retanal mo xol man kay bu re ree xamal sama bay jaay wax tàll. <laughs> yow tan nga fi. <laughs> waaw jaajëf jàmm ak xewal ok. merci beaucoup yow lan nga. man lan la naka sénégalais nga wala malien wala guinéen nga fekk man sénégalais la gaynde sénégalais la d'origine fan Kaolack wala Saint Louis wala fan d'origine Kaolack fi nga juddoo fi nga yaroo waaw ah, juddoo fi la màggee la ah loolu gëmaguma ko moom ah looloo am di non xoolal taxawal taxawal nii wane sa quarante non quarante mu ngi gàlle déet fa di barke am nga 32 quarante 32 quarante foo ko jëlee ah Pé maa ngi lay nuyu man dama bëgg goor yalla gu dëgër këcc. waaw comme. ma comme ta da nga ñëw di nit nuy na la muy daw deuxième di melni ku bañ wax ak nit ñi. waaw ah nit ki de ñëw ko wara fay normalement ci yoon comme dama aadama la. léegi fii fan la. fi moy ancien gara ñoro raison bi. raison bi mooy nangaan. Kaolack. Kaolack waaw nangaan. fi nga juddoo. waaw fi la juddoo waaw. fi nga yoro waaw. mais loolu ñun leeruñ dañu bëgg ñu ñu sétan ñu xamni ki kii Kaolack kor kan la Kaolack maan la. loolu num lay leeree yow. am nga 40 xana non ànduma ak moom nag. léegi baan deuxième quarante yoroo ko. non ànduma ak moom ba léegi. sa deuxième quarante yoroo ko. lépp maa ngi ko bàyyi kër gi dama ko fàtte may génn. kon da ngay reetaan gaa yi gis affaire yi ba am. non ah. kay mën na nekk. Ah. waaw bëggee rek. waaw yow ko la xool xam ne Kaolack nga. bëggee ay conteneur ah. ma ne bëggee ay laa waaw. aywa Serigne Mboup taxawaayam ci Kaolack lan la. taxawaayam ni mu ngi liggéey lu commencement départ. loolu la gaa gis mu toll nii waaw. mais mi ngi koy teg axe. waaw ngi koy tegagum si axe moom kon dal di ngeen ko fi jël di fi tek keneen. ah bu liggéeyut gaa jëlé ko fi. am ngeen fële de. waw aduna non la liggéey rek. aywa yalla mo ñëk sa daan liggéey suñu borom. waw kon yow ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. ok xewal. naka yi tey. alhamdulilah tarkalla. naka kaw la. ah kaw la ngi tang rek. Hmm. ah tang na da tang jër. mais papa Kaolack li tax ñuy gis ni ko bo ba kaw la say bañ di di mel nan ne. c'est à cause de l'eau l'eau est calcaire motax tax ba ñu xur. mais yow moom macha allah sa bañ xuurul. ah bañ a xuur kay daa xuur ba romb xuur bañ sax amatuma ko. gisoon gis ko de reetul duñu ko. Oh, du ma rey ndax damaa jàll léegi. Ah. <laughs> waaw mais mais mag yi démb yi ko fekkee sëriñ bu taxawaayam lan la. kan sëriñ bu ah en tout cas ndongo daara la ndax ba ma koy xam ma boobu tuuti la babaam yóbbu ko kokki papa amna amna fuma jaar ak mom mom baayam bi ko jur amna fuma jaar ak mom ndax ba ma ngi doon ci milieu touristique bi di liggéey ak tuba bi am ben jour mané fekk ma baye alaaji Omar Ba ak alaaji ali sen mané xara ma set alaaj baram bu ma uh, jema a jëflante ak moom keroog ma yobbu fa tuba bi jaay fa valeur 200000 bi ma ñëwee ma yëkati 100000 diko jox mané ne man jox ma li mom rek mais téeméer ak fanweer 10 uh, mètres 13500 la 13500 fois 2 muy 27000 xam nga yàlla yooyu bi mu génn àdduna tamit ba ma demee jaara ji nee naa sëriñ bu fi sa bàyyi teg sa tegoon tànkam boo fa tegee tànkam da nga am lu ko. te ci yoon woowu la ne. waaw ah mu ci yoon woowu de a ah, wàccagu ko nag. waaw da ngeen koy wax na bu ko yàlla may xéewal ak tamit mu am projet na fexe ndox mi ñëw calcaire bi wàññeeku. waaw ndox mi moom war na war na mën a ñëw parce que fi mu ne nii moom. sonn waaw parce que ndox mi neexul dara waaw. kon baax na waaw kon ñu ngi jégal fay naa la bu baax a baax a baax fi mooy fan garage ñooro garage ñooro garage ñooro ci kaolax la bokk waaw ci lan ban rajo la ban télé la si ah ba doxul de te dañoo bëgg boo dox nag waaw. loolu loo ngeen yaakaar ne buñ ko soppee mu dox. ah xanaa kay eh, course 300 yi jëm 500 jëm kaw course 200 bañ a tefee am ah ñu wàññi essence bi ah loolu daal buñ ko defee eh, dana xaw a tane tuuti tuuti ak police yi nekk ci kaw tali bi nii nii nii nii di ñu sonal loolu daal lañ bëgg mu deñ waaw. léegi kaw lax kon noonu course 300 yi moo koy neexal. ah non loolu bu amee. comme yokku nañ essence ñu yokk rek loolu la ñu yokk rek waaw. police yi dinañ jàpp di sono sonal. dañuy jàpp même kii nii sax tey tey jii jàpp nañ ko paa bii nii di wax di toog nii jàpp nañ ko tey. ñaata lañ ko fay ñaata la fay boo génn. deux mille mille du lii de amul ticket de dañ day jàpp di la noggatu ci kaw tali bi fii nii. wax leen ko sëriñ boobu xanaa yëgul loolu. sëriñ boobu ah sëriñ boobu kooku moom daf ñuy seetaan kooku moom ñëwul ci arrêt daa waroon a ñëw ci arrêt yi surtout nag station Thiam bii nii total bi daf fee a ñëw. waaw daf fee war a ñëw ñëw gestu ñu bu baax a baax a baax. ndax sonn ngeen jàppale ñu sonn nañ trop sonn nañ trop waaw. yaa ngi may napp ak sa noir fumé man ragaluma la de. dëggal. barke Serigne Touba yéen ñaar ñëpp laay waxal. <laughs> non xam naa. <laughs> lan la lan mooy lan ma waral nga gis ma may ñëw rek nga takk noir fumé aj garde bi. Ah, man takk noir noir fumé dama takk sànq ba léegi moom laay dawalee moo tax. li nga rek moo tax ngay def lii ngay def. ah dëgg ñu Kaolack moom dañ fay ñëw di liggéey. man teguñu kaala moom. yéen xanaa yéen ay star yi yéen da ngeen di reetaan nice. <laughs> non xam nga ne kaala moom boo génnee borom bi lay star yi jeex. Ah. waaw bu sol. kontaan naan jaafa saa yi tukkil noir fumier yi waay. lépp jaamu noir fumier loolu dafa ànd ak man rek. waaw ah, non da ngaa leen a mën a ñaangal te man moom ragaluma leen. non non ñaawaay ñun ñun ñaaw duñu ñaangal. waaw mais jafe-jafe bi ngeen am ci kaw tali fii ci Kaolack lan la. Euh, ñun suñu jafe-jafe fii ci kaw tali bi bëri na bëriwut. suñ jafé jafé ci gaw talibé dal moy amuñ gëdd ci daw talibé parce que bo gisé comme côté sok bi lay waxé dal su loolu ma suñ jafé jafe da nga gis auto bu la mbëk taxaw di la won ay pièces yom nga né yo amo pièces bayu xel ne mom citoyen la yo citoyen nga da nga limuy daw mom ngay daw dépense lañuy daw ñun ñëpp faaw ñuy bàyyi wante xel. mais Serigne Boub seen monsieur le maire mi ngi leen di bàyyi xel yéen. Serigne Boub Serigne Boub. Euh, am na fi mi fi mi fi ñi muy bàyyi xel mais collectivement defagu ko mais am na côté yoo xamante ne moom ñu ngi dégg na monsieur le maire ñu mu ngi fay comme ci wàllu dawalkat yi wala waaye ñun moom particulièrement yeggagut ci ñun sérieusement. ban message ngeen koy pour mu dégg seen message. waaw ñu koy lancé moom bëri na bëriwul dañ koy wax rek na xam ne borom vélo yëpp ñoo ko fi mu am côté boo xamante ne comme fi fi mu dëkkee daal bu mu bu mu fàtte ñeneen gox gi waa nag kaw la ko ko fal. taw ñun ñëpp ñu dawalkatu vélo dañ bokk ñun ñoo ko fal am na loo xamante ne ne tamit buñ koy dégg feneen te yegg siwu ci ñun dinañu métti benn ko waaw loolu la. soxna si maa ngi lay nuyu. lay fay. tur bi. Aïssatou Diouf ba. lan nga bambara. Pël Fuuta laa. yàgg nga Kaolack. tuuti rek. def ko fi ñaata at. amaguma fi at defee at yu bari reetaanal ma xool. waaye pour la la pare lu tax nga wax loolu. Eh, Kaolack dégg naa ko fi yàgg sa bëñ day dem ba ah. ah man de bëñ chocolat ko. yaa ngi séntu bis mu chocolat. ah. yaa ngi séntu bis ñëw mu chocolat. est-ce que ma léegi ma ñibbi. kon léegi lan ngay wax eh, mi ngi neex. neex na neex na am na waaw jàmm rek de moo fi fu neex waaw fan nga rek nga ne Louga moog Louga fu mau a neex nih? Louga fépp a neex da ngaa ñëw fii pour sëy wala sama mag laa seet si léegi lan nga wax waa Louga xanaa di leen nuyu rek mhm. ayo musa Kaye ma wax nii wax ko waaw mais Kaolack bëri ngeen jàmm da ngeen di ree rek ah, wallaay fii kay Kaolack moom boo dina jàmm wax dëgg si yàlla nag Euh, yan jafe-jafe ngeen am. ah jafe-jafe moom moom sant yàlla bu baax ndax ñu ndax ñu ngi wër kay am nag wër kay ñu ngi fii di débrouiller rek di góor góorgóorlu di jaay ndox mais fu mu nekk nii kay dëkk bi mooy loolu mais yàlla baax na. Serigne Mboup mi ngi leen di gëstu. ah mu ñuy gëstu waaye sant yàlla bu baax. ah. ah, ah ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy wax nag gën a góorgóorlu rek ñu ngi si ginnaawam léppay baax incha allah. taxaw nag. Eh, jawri na nga def. naka liggéey bi. sant yàlla bu baax. mais naka liggéey bi. sant yàlla sant yàlla. mais kaw wax ni la neexee. waaw kaw la moo dàq gi. asalem ngay beew. peerew kii ngi yëpp nga koy dàq. déet dàq ma ko de. non da nga koy dàq ma kenn man. mais kaw wax fi am ku yëpp ñu lay dàq. oto amul. oto moom maa ngi kaw mooy ni problème bi. ah état bi ma joxe ay nit ñi oto. Ah. waaw. état bi moo leen war a jox oto moo war a envoyé joxe oto yi lebal chauffeur si oto yi ñu seen maire bi est-ce que mi ngi leen di jàppale tamit seen maire bi mi ngi mi ngi mi ngi dox ci loolu ah maire bi de ah maire bi kay xamalu ma dara moom Serigne Mboup xamalu ma ko dara ah, dëkkoo Kaolack ah bu ma dëkkee Kaolack xamalu dara man kay du Babacar wax lu ah, fan la garasu carré ci la waaw ah neex rek neex bu yëpp ñu ngi sant yàlla. papa yow Kaolack depuis kañ nga fi nekkoon. man euh, yàgg naa fi ah, parce que maa ngi fi ñëw 75 ba léegi maa ngi fi. fi nga amee quarante. déedéet. juddoo woo fi. waaw juddoo ma yàgg fi sa bëñ yi di chocolat. du ma Kaolack ma fi de mais dama ko fa indaale. mais dafa weex. waaw. sa bëñ dafa weex. déet looy a ah, bëñ daa weex yow. wax man damay laaj dag may laaj leneen waaye bu ñu waxee yooyu moom mën naa ñàkk. waaw léegi Kaolack. waaw Serigne monsieur le maire ndax mi ngi liggéey. doon amaguñ ci lu leer de parce que ñun fi nga xam fi la nekk nii bu la neexee waaxul sa tànk bëccëg nga ñëw xool wala autorité fi nekk parce que askanu sonn nañ trop parce que mbedd mi képp koo xam ci ne xool nga muy loo xam ne leen ay doomu aadama da nga leen fi dugal war nga ko mën a saytu wala xam ba xam yaa ngi jàppale askan wala jàppale So chauffeur si moom bu fekkee ne wax nañ dëgg wala client yi xam nañ ne fii moom ñu taaj chauffeur si moom jàppale wuñu ci dara fi ban quartier ah moy moy moy moy moy moy rue de France. mais rue de France da war rafet. ah rue de France mais bu fekké ne defaru ñe nak barikat bu rafet ñu ko defar. wa yeen lax ngeen am ay mag yu bax ci dëkk bi ngeen jël rue rue de France pour lan wax lu nga xamoon lan rue rue wala ba war rue lañ ko fay fek lool lañ ko fay fek ñoo ko fi def. ah ñu ko xanaa tubaab bi wala ñu ñu fi nekkon ak ñom pourquoi sen maire yi mu ñëw. sànq laaj rek may laaj ci biir dëkk bi. li ma lay laaj ni c'est intéressant papa. waaw do ci yow. mais man li ma mooy li nga xam bii ne moom la askan wi di dund fi tool nii. xool nga leen population bi war a ñibbi mënuñu am fenn fu ñibbi parce que yoon yi baaxut amul amuñu garage boo xam ne transport dañ ko waroon a sóoraale parce que dëkk ak mbooy ak transport ñooy ànd lu toll ne région ko Kaolack marché tool yi bi ku xëy fi nga daw si waroon nañoo sóoraale transport si xam ne carrément ñii que dañoo war a mën a am fu ñu teg seen tànk suñu wàccee war a am seen tànk fu ñu leen teg mais mbedd nga bëgg a boole fukki garage dugal ci biir jaar jaaduwul garde garde parcelle suba soor kabatooki bu bustaan yëpp ñu boole leen ci benn mbedd mbedd maa ngi ne duy ndox ba fees bu subaa àndal sa gars yi sa waa presse bi ngeen waaxu ñëw ñii fi taxaw yëpp waa sa bongore yëpp ñu ngi nii taxaw oto yaa ngi nii amuñ fu jëm yaa ngi gis askan wi ñu ngi bëgg a ñibbi lu ko waral yoon wu bon amuñu fenn fuñ jëm waaw waaw amit xanaa fan wu gudd waa na ko wér nag cagin nañ jàllale li ñu soxla ñu dimbale sofër si nañ leen dimbale ci yoon ni dimbale leen fuñ ne gaaros yi moom képp kuy wax dëgg boo dikkee dëgg bëccëg laajte gaaros kand gaaros laaj fi tata nekk xool ko xam ne fii daf ko fi dugal nit jàppale woo leen war nañoo mën a dimbale sëkkal ñu ko boo ñu amul gaaros boo xam ku jox fekk ñu fay tam nañ defar foo xam ne fii ne xet gaa ngi nii dañu bëgg a rey ONAS yi daj fi daal mu ngi noonu daal sëñ bi néew ma ci yéen. gannaaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. xanaa yaay roxo disket bi. non maay roxo disket bi waaye nag caméra bi boo baaloon dina ma leer de. mais caméra bi day laaj sa liggéey lay laaj. non mën nga ma laaj ma wax la waaye caméra bi moom. dina ma yéem trop. waaw mais waaw léegi liggéey sa liggéey léegi léegi liggéey bi nan la demee ba ñaata la. liggéey bi nan la demee ba téeméer la ñuy jaay fu mu nekk nii. Ah. su fees 300 waaw. waaw loolu yomb na li. ah yomb na kay xam nga dimbal jaboot rek parce que nii lañ mën a def pour ñëpp am. so demé ci boutique yi li ñay jaay day seer. mais fo dekk man Kaolack fi la dekk fi nga juddo fi nga yaroo. fi la juddo fi la yaroo fi la magi kon yaa ngi sa carte d'identité kon. Ndorong laa juddoo non ma ak actuellement ni mom anduma carte d'identité permis de conduire la fi amé ah sa way ba li nga wax Sénégal ak lay sétane Sénégal ak may sétane kay non amna ko dama ko indi wut fi ni nga woo kay. <laughs> sa carte d'identité baa ni dan noo ka carte d'identité bi moom Sénégal gis nañ ko foofu moom d'accord naa boobu. waaw kon jeex na foofu moom d'accord naa eh, ya eh, xoolal bu ma defaat nii de eh, wuy ma allah yow jongoma jongoma de. jongoma laa kay. jongoma Sénégal. waaw waaye man Gambien laa. Gambie Sénégal fii Kaolack mi ngi neex. waaw neex na kay incha allah macha allah. léegi yow kan nga fi ñëw. man tey si suba laa ñëw fii dama ñëw jaay di dem. Eh, nga ànd sa borom keur waaw. lan ngeen di jaay. yàlla man suma borom ci jaay dara man may jaay sipa. yaay jaay. sipa sipa. sa jëkkër. jaayul dara mun sa keur ga. yaay jaay diko jox. waaw mom dafa febar werut ndaysan waaw sha allah kon ya ngor gor waaw maa sa kawam de. Kaolack nag noo ko ah sante yalla ba mu bëri kay. sant yàlla waaw. leg sa jeuker ji nek ci keur di la setan ban message nga koy wax kontaan nga ci mom kontaan na ci mom tolo maa ko ñaan yalla mu am yor bu yaram. wallaahi nañu mën a tette suñu yi bu baax. waaw. kon yaa yow gën la ba njaboot gi màgg aw la. wallaahi maa ngi góorgóorlu de. jërëjëf. jërëjëf waay jërëjëf. xale bu jigéen bi sama jabar firul waxal ak man nuyu naa la. maa lay fay. naka yi tey. maa noo tudd. awa. awa fii nga dëkk. fii la dëkk waa. mi neex. mi neex waa. da ngay jàng wala. non ren moom mooy loolu formation formation laa bëgg a def. ban formation nga bëgg a def. bëgg naa coiffure. Mhm. wala lan. ah wala lan. coiffure mu ne sama xel daal. Mhm. yow foo dëkk Kaolack gi nga dëkk. waaw. fi nga juddoo. waaw. am nga 40. non. amaguma 40. amaguma 40. non mais suba suba laa koy léegi reetaanal ma xool. xool ma fii eh, xool ma xool ma reetaan ma boo ma reetaanee naa xam ama kalante wala reetaanal. mi la ama kalante. ama kalante. maa ngi lay jaajëfal dégg nga. ok merci. est ce du ma ñëw takk la ñaareel sax wala da ngaa ragal. ñaareel. non. bul tapet mami Gueye ragal la rek. nab nga ma xool ma. xool ma nee ma jaag gis na ma boowee. waaw nga ma. Hmm. na woo ma. nam naa la waaw. ah eh, Moussa Mbaye am naa fi ñaareel mi ngi noonu mbokk yi ah ñu ngi nii Kaolack ndangaan ah fe ah divertissement rek bëggalanteeg suñu biir bëggalanteeg suñu mbokk téléspectateurs yi ah waaye itam message bi may dégg Kaolack neex na ma torop muy Serigne Mboup li ko askanam di wax na renforcer waat ay mandaam donc lolu ñu ngi koy ñaanal nak lu mën ren yalla mën déwén lu ko ab dëkk boo fa nekké da ngay gorgul sa dëkk ba waye kawlax mi ngi neex da musa xala jigen kawlax yi xala borom njaay mi anamu da dawon da batay ñewugul musa ka and ak ñun yaay bo looy jënd ni fëgg jaay lay jënd tan na yi pour xalé la. wa pour xalé wa école bii bee da fëgg jaay bi day baax. wa day baax mom waaw. mais sen seen monsieur le maire Serigne Boub mi ngi liggéey. ah sante yalla rek. waaw waaw ma ne Fall Ndiaga baal na la nag. waaw góor yàlla nga. waaw piir Baye Fall nga Baye Fall pire. kan mooy sa sëriñ. man sang Cheikh Moussa Diagne mooy moom mooy sama sëriñ. man sëñ maam Cheikh Fall sëñ Modou Ablaye Fall Ndar mooy sama sëriñ. dëgg la dëgg la kon kay ñoo bokk lépp. mais yow lan rek lan bokkul ma yow. dëgg mooy lan. raison fi ma dëkk ak fi nga dëkk. waaw bokkut. yow foo dëkk. maa ngi dëkk bu Foundiougne. fu juñ laa dëkk raison Fatick. man bi ma la gisee pour man Kaolack nga judoo fi nga yaroo. non non ma Kaolack maa maa ngi juddoo Foundiougne yaroo Foundiougne mais Kaolack laa laa laa defee sama jeunesse yëpp nag waaw di yëngu si aar bii nag di jaay fëgg jaay waaw di si di si bëgg a di si bëgg a teral sama samay moromi jullit yëpp waaw samay soxna ak samay doom ñëpp si laa leen bëgg a teral waaw ak samay yaay samay am di jàmm samay ñëpp waaw incha allah bëgg naa loolu que yàlla ma ko yàlla may. waaw léegi réew mi métti na wala méttiwul. waaw ah réew mi moom tar na tar na tar na trop sax waaye nag moom dañuy dañuy dañuy sant yàlla li sabablu rek. waaw parce que léegi-léeg fii ñu taxaw si police day ñëw dàq ñu nangu bagage yi yóbbu lépp gendarmerie balaa nga koo jël da nga fay xaalis ke da ngay jënd bal bees ñu yóbbu lépp police waaw ñu jaaxle lool waaye nag liggéey ak loolu ñu ànd. léegi léegi sëñ monsieur ndax mi ngi leen di geesu. waaw waaw waaw waaw Serigne Boub moom ah, mu ngi gëj a xool gars yi de waaw mu ngi gëj xool gars yi trop sax damaa xamul ne ndax day nelaw damaa xam ne ndabam dafa génn dëkk bi waaye daal mu ngi mu ngi xoole de. waaw réew mi ni mu méttee sëñ Mountakha jox nañu solution. waaw surtout nag. sëñ Mountakha xam nga lu ñu sant. Uh-huh. dañ dee leen reetaan dugg leen ci bëgg di leen waa waaw di firi. reetaanal firi waaw bëggee rek. Fall Ndiaga bëggee rek. waaw la demee ak eh, diskat bi maa ngi lay nuyu. lii mbaa jàmm la. mi ngi neex. ah neexu yam rek. neexu yam. luy neexu yam raison yëpp di neex ngeen ni Kaolack neexul. Ah, waaw neex na neex na lan mooy seen problème. ñu ne ñu ngi sant yàlla moom. mi ngi baax. ak sant yàlla rek alhamdulilah. ban message ngay wax Serigne Mboup. Serigne Mboup ah maanaam mu dimbale jaaykat yi rek ndax des fois da ngay ñëw fii di jënd di jënd ba ci digg bi ñuy dàqe gaay yi seen di wadd. mais daa mel ni dëkkoo Kaolack de. non. foo dëkk. <laughs> loolu amul solo. Ah? am solo am solo. nga dëkk. Quand raison la. waaw maa ngi la jaajëfal. waaw waaw. waaw doon lay siyaar. Ousmane Diagne damaa ñëw ci garage bi coxeur nga fi xanaa. waaw coxeur la waaw. mais pourquoi heure bi client yi bari fi amul oto. ah client yi dañuy et puis dañuy yoon ñuy dugg pour yóbbu client yi wu dañ fay éviter yoon wi amul lampe dañuy fait client yi nag léeg-léeg ñu mer wax leen lu ne mais taximan ni am na ñoo xam ne duñ leen tontu dañuy def seen liggéey rek wàcc dem léeg sax minicar yi ñëw fi quoi yëpp ay quelques clients dem ko métti na lool ñu ngi ci ñaan na gars yi dimbale ñu defaral ñu yoon yi via yi quoi clients yi mën na jëm ñibbi. Kaolack guddi moom comme Colobane. waaw dëgg la métti na de dafa déborder moom macha allah gars yi ñu ngi kaas rek war nañ ñoo jàppale de. waaw léegi seen maire yi ndax ñu ngi leen ñoo wax ñu jëm effort ci mbir mi ah maire yi moom xamaluma leen dara ndaxte ñu ngi seen kër di def lu ñuy def quoi du ma leen ñu sax gis lu mu leen wax tooñ leen mais daal dëkk bi moom ñun lu ñuy gis neexuñ ñu quoi buñ sañoon daal ñu defaral ko lépp nice ñu nekk si jàmm ñu ñëpp ndaxte dëkk boo si nekkee da ngay defar quoi pour ñëpp pour population bi quoi waaw loolu mooy problème ok jërëjëf fi nga juddoo fi nga yoroo waaw ñaata at nga am man non man jàpp moo ko nag am amoo quarante. sa diggante yàlla. billaahi. am nga quarante kay. amoo quarante. waaw am nga quarante booy. am naa ana mu. muy nii. ah. non mënuma reetaan. ndax du reetaan lañ ci mbégte mi nga reetaan. waaw maa nii reetaan nii waaye mënuma kaa kii mënuma kii daal mënuma reetaan daal mu kii daal. mënoo xaaxataay quoi. waaw waaw mais lox léegi nan ngeen di def pour mu dañ. ah nan ngeen di def rek. nii daal laa ko mën a ah. muy nice. waaw ah. am nga gel am nga gel. nga gel. loolu moom mënuma romb na war na ko romb mun mënuñu ko def. parce que heure bii heure bii mag ñëpp nekk si arrêt kenn mënul def. moo mel noonu mun ñu am maire amuñu wërsëgu maire kuy liggéey tuuti xanaa ñu ñëw def waaye ñi fi ne ñëpp du liggéey. maa la xamal loolu. mais léegi mag lan la wax gan kàddu nga war a yëkkati ngir mana mën a soppeeku. Kaolack mën a soppeeku ñu dox gu ne ñu liggéey rek bàyyi mag ñi mag ñi bu ne dong mën kaulah liggéey Kaolack waaye mag ñi mun ñoo liggéey dara dong lu ñu bëgg. léegi Kaolacku ak lan leen wutale. ah booba lépp a yomb te léegi lépp <laughs> papa loolu fépp la de. ah xam nañ ko si kuut ñun dara jaaxaluñu kilo ceeb ñetti dërëm kilo ceeb juróom-benn dërëm fa ñu fekk. te yaa ngi jënd kilo pepp léegi téeméer rek ñaar fukk. macha allah. kon koy xam nga loolu yàggul. léegi kon yow fekk nga lu bari ci kaw lax mais lan moo waral seen bëñ yi di sokola noonu. a ah, loolu nag de ndox mi la woon te ndox mi bàyyi nañ ñu. ba tey nit mi ngi mi ngi sokola. waaw ah, bariwul bariwul ndox mi la woon. mo wara ñi di weex ñi di sokolaa léegi. ah non la aduna doxé non ndax ñi dañu ñul ñi xéx waaw ñu ngi lay jaajëfal pap jërëjëf yàlla yalla ñu may fannu gudd ak wër muccu ganda ak xewal. aco Moussa mi ngi nonu loolu lañ seen soppe sekanaan jël loon jël ci won Kaolack nag euh, xam naa ni suba dañ fi defaat ay yeneen reportage seen télévision régionale muy précise mbokk yi Kaolack nak yaakaar nañ liñ fi gis euh, ñu ñun. parce que heure wàcc la are yaa ngi nii suñu morom yaa ngi xëccoo oto suñu morom papa yaa ngi xëccoo oto donte monsieur le maire Serigne Mboup mu ngi def le kéemtalaay kàttanam mais état na bàyyi xel waa Kaolack na leen jàppale na leen jàppale bu baax lu mel ni ci tata yi ah man gisuma benn tata Kaolack ay Jakarta laaf ah. dañoo wàcc mais kon teel nañoo wàcc torop ah nanu jàppale waa Kaolack ci ndox mi ah ndox mi ndox mi bari na lool te salte na torop nanu jàppale waa Kaolack waaye Kaolack dafa bokk ci réew mi te dëkku diina la dëkku lislaam la ngi jégalu baax nag di jégalu baax nag ci divertissement bi ñu doon def sànq muy maanaam ah di leen daraay di leen tooñ waaye loolu lépp day wane ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw moo waral ñuy kafante suñu biir di kaf di ree te seen télévision régionale ni may faral di leen wax à chaque fois rek seen naqar la ñuy xeex ndax seen mbégte yéen mooy suñu bànneex ba tax na fu nu mën a xamal ni mën ngeen fa am mbégte rek seen soppe Seck Ndane dina ànd ak Moussa Mbaye ak l' ensemble jël leen ko ñoom muy jàmmi réew mi yëpp mbokk yi foofu ngeen teg seen baaraam nag ñu dem ci yeneen découverte wala yeneen divertissement wala yeneen culture wala yeneen xam sa réew ak seen soppe Seck Ndanane di jaajëfal suñu PDG Pape Doumbia lii ci xalaatam la juge dem leen ngeen divertiru ci région yi ngeen waxtaan waa dëkk yi ñu waxtaan ak ñoom waxtaanam seen réalité ñu ka fooree loolu la kon Moussa Mbengue ñu ngi koy jaajëfal bu baax Moussa laa àndaloon ci caméra bi mbokk teg leen fa seen bara ñu wéy di ànd ak yéen seen wàllu information ak divertissement bye bye jërë ngeen jëf